ci gars yi lëz sama cadreur bi neewoon naa leen tey duma leen may dara damay dugg Proxi TV xolal bett leen télé bi la jege jële sa bopp gars xew ci jamono ay ca lëz ma dugg secrétaire yaa léegi toj ko ah, gis nga secrétaire baa ngi toog yaa ma gën a xam neewoon naa damay dugg Proxi TV toj ko maa ngi ak secrétaire bi rek secrétaire Proxi salaamaaleykum secrétaire maa ngi lay siyaar DJ Momo si loo nekk ngi ci jàmm. maa ngi si jàmm bu baax alhamdulilah. moo xam ci Proxi bu tey seet leen waa Proxi xanaa mbégte ak contentement rek si Proxi TV lu ñu ñëwee ni fekk ma ni bett ma ni waaw kontaan naa mais liggéey bi est-ce que yombul wala yombul. benn liggéey yombul de comme liggéey yëpp liggéey moom liggéey la benn yomb mais bon dañ siy wax lu àq rek di def lu ñu mën waaw. ñu gis na secrétaire bi ñëpp nee nañ doo leen may dara surtout maa ko tardé nga waaye nga defal ko affaire loolu. waaw ah, bëgg affaire yi normal rek bëgg kër gi jaar yoon rek mais defuma ko pour méchanceté wala dara mais bëgg rek affaire yi normal waaw ah, noonu la fa demee. mais 2021 bi ngeen toj ko lu ngeen di waajal 2022 bi. yii loolu duñ ci wax dañuy bàyyi te téléspectateurs yi gisal seen bopp en tout cas daal nañu xaar programme yu bees émission yu bees lu neex askan wi daal Proxi TV bi daal télé banlieue la ku si nekk dina si gis boppam incha allah. jërëjëf. <laughs> ay ci élage ba tey duma la bàyyi nee la pare naa ci secrétaire comptabilité waa xaalis bi ñu ngi nii salaamaaleykum madame Diouf. maaleykum salaam. maa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm moom. moo leen bett tey yéen waa Rock Chez Vous lu ngeen ciy wax. <laughs> ah kontante rek am kontante rek <laughs> waaye moom moom bett nga ñu nag. Ah, mais noonu la parce que yéen du ngeen ñu may dara ñun employé moo tax faa ma leen di bett tamit di leen defal bagage. loolu am na loolu am na loolu am na. Mhm. mais naka liggéey beeg programme yi temps yi macha allah gis nañu da ngeen di liggéey du lundi au dimanche. waaw loolu am na ñu ngi liggéey du lundi au dimanche amuñu repos liggéey moom boo ci nekkee moom ah dañuy jàppalante rek pour liggéey bi dox incha allah. di waajal 2022 bi incha allah bi ngeen pare ci 2021. 2022 moom ñu ngi ci waajal ñu ngi ci waajal lu toj macha allah programme yu bees a ngi fi émission yu bees Proxi TV daal dina am changement yu bëri. ci 2021. ayca bi ma paree secrétariat gis ngeen ko noonu maa ngi nii dugg fi nga xam mooy régie euh, salle montage boog ngeen baal ma ayca maa ngi ci salle montage bi gis naa fi benn booy boo xamante ne booy bu sikk la booy bu sikk la booy bu sikk la booy bu sikk la frère maa ngi lay nuyu. maa ngi lay bégee bu baax. tur bi naka la. maam Thierno. lan moo sa liggéey ci Proxi bi non cadreur monteur réalisateur. mais sur le terrain ngay nekk wala studio bi fii ngay nekk. non parfois ñu génn hmm. liggéey bi laaj rek. loo bi.

yakarna avant 2022 bi sax gis ngeen innovation yuñ def changement le plateau yeneen yeneen na ngi ñëw daal. Aida Aida Aida ngi ni eh, Aida na ngeen def Aida yow lan nga ci kër gi yow ah Aida lan nga ci kër gi la bëgg xam yow lan nga ci kër gi yow tamit jàkkaarloo caméra technicien manam technicien rek. lan ak lan caméraman nga monteur nga réalisatrice nga. wa no gisé liggéey pro 2021 ayda Aida. jasi waay waaye noo gisee liggéey 2021 bi tamit bi mu ngi nii rek gars a <laughs> mais lu ngeen di waajal 2022 bi yéen waa technique bi non 2022 moom incha allah beneen affaire la mhm. mais damay dégg olof naa liggéey xale quoi dëgg la waaw liggéey xale <laughs> mais est-ce yomb na si jigéen aussi tamit ngay dem sur le terrain nekk cadreuse nekk aussi réalisatrice tamit dem sur le terrain yomb na wala yombul non non yombul mais jom rek ak amour waaw la waxati yéen a mën a laaj ay ja yéen a mën a laaj ko koy borom boole sunu yaay ji Leuz nee naa la tey day neex ay ca tey day neex tey day neex tey day neex Leuz topp ma ma dugg fi nga xamante ne moom mooy ci bureau directeur programme ah monsieur Mbengue ak ah monsieur Mbengue dafa mel dafa génn ah monsieur dafa daw mais dinaa ko jàppaat léegi léegi nii ci kanam ay ca ma dugg bureau fi nga xamante ne moom mooy waa Cheikh Cheikh Cheikh Bey mais Cheikh Cheikh Bey Cheikh ñu ngi lay nuyu di la sargal bu baax a baax ci nga xamante moom mooy euh, proxy fekk la ci proxy lay lay Saliou ñoo ngi nuyu di leen di leen ziar téléspectateur Proxy TV balaa ñuy cadeau anniversaire bu rëy Cheikh doo ngi seet waaw sama la Aminata Assome Diatta maa ngi lay gërëm di lay siyaar ministre du commerce mais ngeen seen diggante la la bañ la koy tuddi naan euh, Cheikh Assome Cheikh Assome Sénégal yëpp ñu koy laajte maanaam si cadre la rek daanaka daanaka événement Assome Diatta yëpp maa ngi dem di koy couvrir benn jour nag euh, yaakaar naa ba Macky Sall di fi ñëw nan ma jox ndigal ne Assome Diatta daal bul ko wàcc na nga ko cadré na nga sax bul ko wàcc ci laa jël caméra bi nag Assome bu doon xeef lu mu def mouvement bu mu def daal jël naa ko voilà ci laa ñëw woon leen image yi gars yi nag waaw waaw apprécié na waa Cheikh amul Cheikh Bey kii mooy Cheikh bu cadreur bu baatu askan aussi. Mm-hmm. waaw baatu askan bi waaw émission sama boobu moom sama émission la boobu sama émission la réalité yu am si Kër wala banlieue surtout même si Sénégal ndax daanaka tey jii nii événement bu am bu bu neex baa bu naqari teg fa sun euh, association wala groupe regroupement yi nga xam ne euh, maanaam ñoo def lu ñu ngi leen di wane di leen di fësal te am amul benn contrepartie bu ñuy am si ñun laajuñu leen dara du paas du dara maa ngi lancé appel ñëpp tamit baatu askan bi numéro boobu jaay moo ngi si affiché lépp loo leen am si naqar wala si bànneex wala si jooytu boo ko woowee incha allah dinañ dagg suñu paas ñëw couvrir leen ñu ko defaral leen ko incha allah. mais 2021 bi ñu gis liggéey bu rafet bi ngeen def lan moo la gën a marqué ci 2021. bon ñun moom wax dëgg na yàlla ay ay ay ndaw lan waaw dañuy dañuy dañuy jéem rek dañuy jéem rek. mais di sant nag Proxi TV bu baax a baax ndax tey jii nii lu man rek Proxi bi moo tax wallaahi Proxi lu man Proxi daanaka am na loon jàng nag am na loon xota jot a jàng mais lu man dëgg dëgg dëgg bi TV moo na ko may techniquement surtout surtout yow waaw di di leen di leen wax ne rek 2022 bi am nañ si ay innovation yoo xam ne yu yu extraordinaire commencé nañ ko sax si décembre depuis caravane bi lañ ko commencé maanaam si compétence si technique si matériel yëpp ñoo ngi xaar incha allah innovation yu garaaw si 2022 bi. Cheikh Beye la grand cadreur ñu dul daawul génne maa leen di génne tey ah euh, lage Hadj fekk ma bureau directeur général bu ko defee ñu nuyu ko moom tamit ci Proxi chez vous tey nee naa la fépp laay dugg El Hadj kii mooy directeur euh, bi nga xamante ne moo nekk Proxi TV yi euh, monsieur le directeur maa ngi lay nuyu. waaw mais moom moom maa ngi lay fay. maa ngi ci jàmm. waa maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. bett naa leen ngeen yónni ma ma daw duggaat ci kër gi loolu jaaxaloo la waaw wax nga dëgg de yow de à bi ñu lay yónni c'était pour nga dem ci askan wi waaye ñun askan wi tamit du ñu si génn boo ñu jëlee rek euh, waaw day nekk sotti si ak def si daal mm-hmm. ñu gis 2021 bi ñu def lu extraordinaire euh, ndax nga mën a jàngatee li nga xam ne mooy liggéeyu Proxi bi ren ci édition 2021 bon xam nga Proxi moom comme ni ñu amee habitude di ko wax rek euh, dañuy soog a commencé c'est

incha allah di nga ko gis ci Proxi TV. kon mën nañu xaar daal lu extra ru poj poj ci mais non noonu lay demee ci boppam 2022 moom incha allah ku seetaanul Proxi TV seetaanoo télé. mu ngi dox. ayca leus ba tey ci kii bi Ngoné nuyu naa la. maa ngi fay moom. Proxi Proxi chef bu la ñu wax tey ma fekk leen seen bureau loqati leen loolu loo ciy wax. <laughs> bëgg xaalis di nga wax ne ngoone commercial a ngi nii mi ngeen di dégg ci télé bi da gisoo leen ko ngoone looy wax pour waaw garaawul yow ñoo far bëggum xaalis ba tey mais nuyu naa la ngoone waaw maa ngi lay fay euh, naka seen liggéey waa waaw ñu ngi nii rek ñu ngi góorgóorlu hmm. waaw di 2021 mi ngeen def lu extraordinaire aussi ndax nga mën a expliquer téléspectateurs yi macha allah di wax ne rek voilà euh, télé baa ngi noonu askan wi ñoo ko moom dañu wax Kër Ma Kër Massar bien que fii lañ basé wu mais pour banlieue bi yëpp di askan wi yëpp aussi ñuy ñaan yàlla tamit mu gën a élargir génn territoire bi yëpp dem ba si dëkk yi sori sori les yëpp. mais ñu gis ñu gis ñu gis Ngoné aussi en tant que commercial aussi macha allah di di sonn lënd ba demaat day liggéey. ah waaw mais noonu la noonu la xam nga loo gis gis euh, loo gis rek gëm-gëm daf see bokk te nañ yàlla def ne waman af maalu binniyaat

donc là, mo gëna a tax positive initiative commencer par don de sang pour que ne lépp rek lu ñuy def rek voilà c'est dans le but de bien faire dans le but de yaatal ñëpp pour le 18 aussi nous, gis ngeen ñëwa dabal le 18 exactement le 18.

voilà moom tamit mu defa show bu am doole macha allah. bu ñu fa jógee aussi tamit la ñu gis tamit tànn beer bu mag bi ngeen defoon. waaw tànn beer bu mag bi boobu moom xam naa ne ku ku ko fekkeewul sax dégg nga ko baa nga seetaan ko. tamit say pooj say pooj ñu tele non man moom. sa ceebu jën ak baara <laughs> nga bokk. waaw xam nga man mag laa maa yaay xale. dafay aussi ñu gis ñu gis nga def arbre bu am solo si ànd ceeg seen système mm-hmm. xam nga tamit lépp lu ñu defar tamit xale yi si lañ bokk xale kenn mënul dem fàtte leen parce que xale yi ñooy doon mag yi suba voilà xale yi ñooy yore tamit proxy ëllëg

en compagnie de Mamie Cruz une star international de Kofi tamit Kermassar. donc moom tamou mu fas commercial ku bëgg ci ticket nooy Le ticket est disponible mu ngi fii ku numéro 37 358 37 37 ñu euh, jox la sa ticket. Amna bu 20 000 bu 50 000 am bu 100 000 francs. Aïcha, mu ngi noonu gars yi ngi deuxième mais m'a yëg troisième hold directeur programme ak équipe le stop mu ayca ma Madame troisième troisième troisième. ayca nee naa la maa ngi troisième xaaral ma dugg bureau Malick Leuz topp ma ma dugg bureau Malick ayca Leuz comme ni ma la ko waxee maa ngi bureau Malick euh, ah Malick nuyu naa la. jaar naa la boobu. mbaa yaa ngi jàmm. ñu bu baax nag naka liggéey bi. waaw ñu ngi sant bu baax. Rock chez vous la moo seet si woon TV. waaw waaw la. waaw am nañu mbégte bu baax nag di la dalal di leen dalal yow ak euh, sa équipe. donc euh, ñu ngi profité rek ci occasion bi di souhaiter nos meilleurs à nos télé euh, chers téléspectateurs de Proxi TV ndax depuis boobu ba léegi ñu ngi aussi donc ñu leen di présenter suñu ay programme Les loo xam ne ñu ngi koy def ci télé bi rek pour nous, la su améliorés lu ci dëng ñu koy jégalu su amee lu ci jub ci ay jeunes yu taxaw la rek bëgg a def donc ñu ngi nekk di jéem daal. mais noo c'est Proxi TV 2021 bi. waaw 2021 Proxi TV yi nag taxaw na temm ànd ak ay jeunes yu fresh wax dëgg yàlla pour pour rek doxal mbir yi comme comme il le faut. bëgg nañu yéegal cap bi te yéegal nañ ko sax déjà mais fi ñu ko bëgg yóbbu la ci kanam a kanam la te li ci kanam raw li bët yàlla nañu yàlla jàppale rek incha allah. ay ca lees bi ma génnee bureau bi nga xam mooy bu Malick damay yéeg na xoolal ci kaw DG DG Moussa Mbengue directeur programme xam nga moom fii lay noppaloo xam nga projet dafa neex. bu la neexee yéeg ci kaw sax laal sa piscine ah toog feexlu ngelaw bi di leen dugg lees lees projet <laughs> moo neex Moussa Mbengue laay fekk bureau am nii ah lees le directeur de programme. bu ko defee ñu waxtaan ak moom ci programme yi nga xamante ne moom moo am ci euh, télé bi monsieur Mbengue nuyu naa la maa yaa ngi ci jàmm. nag euh, activité yi. ñu ngi bu baax. noo aussi Proxi bu ñëw tey seet si waa Proxi TV yi tey daal day mel ni Proxi nu la kon. mais di ko rafetlu rek wektu bu rafet la donc euh, bu ñu nee moom wax dëgg yàlla dafa mel ni fii la ñu war a yëpp njëkkee sax dèjà donc nag télé baa ngi nii pour ñu ko xamul woon wala ñu nga xamante ni xamuñu woon localité fu mu nekk donc fii mooy Proxi TV. donc li ngeen gis yëpp mooy bâtiment bi la donc euh, voilà di rafetlu tamit proximité chez chez nous bi. autant dire que chez nous quoi. mais damay rapidement ci li nga xam ne moom mooy programme yu bëri dañ ko posé woon nekkaat ci activités yi nga xamante ne dañ ko war a relancer waat pour lu waraloon pause bu yàgg bi. waaw bon xam nga boo nekkee ci dara euh, dafa war a arrivé benn moment donné nga def benn standby ngir jàng jàng gi mooy lan fi nga débuté fi nga yegg bu amee ay gàllankoon nga jéem a def benn. stand by bu lay mën a permettre nga def évaluation xool li nga xamante ni moo dox nga jéem koo améliorer li nga xam ne doxul nga jéem a def nan ngay def pour mu dox li nga xamante ne nag moom dafa nekk ci stade dox ak ñàkk dox nga jéem a def nan ngay def débarrassé wu ci loolu pour au moins def ay changement par rapport à ça c'est mieux quoi c'est-à-dire que amul benn njariñ di avancer à l'aveuglette quoi c'est-à-dire di dem ni di dem di dem ni rek amul ben njëriñ donc le mieux moy dañuy àndandoo ñu ñëpp ñu dem mais dans le cadre où euh, sûrement lentement aussi. léegi ñu mën a xaar ci relancement bi 2022 bi yan programme yu bees la prochain mën a xaar tey. waaw programme yu bees yi nga xamante ni askan bi euh, mën nañ ko xaar mooy comme programme télé ni ko ñëpp xamee ci programme mu télé mooy euh, volet bu nekk.

c'est-à-dire des Rufisque des Pikine des Guédiawaye la banlieue nous ñëpp sentir ces nouveaux ci télé donc d'où l'importance aujourd'hui nous annonçons par exemple le programme bi ñëw chez vous donc le Proxy chez vous autant dire que ni carrément c'est pas une émission de divertissement mais plutôt on va délocaliser toutes nos émissions par exemple au niveau de Rufisque ou bien Pikine Guédiawaye nga xamante ni nek, askan si je l'exemple d'une émission de santé on va le faire dans les structures yi nga structures de santé yi fa nekk ñu defal leen émission par exemple je parle par exemple l'émission de ma localité donc ñi nga xam dañ fa nekk aussi dinañ mën am émission pour xamante askan ba fa nekk dinañ ko mën fait def ñu xam seen jafe-jafe comme émission aussi taxaw seetlu dina fa mënti am baatu askan bi aussi dina fa mënti am émission thématique aussi dina mën am par exemple au foofu nga xamante ni fa lañ le proxy chez vous donc proxy chez vous dafay ñëw rek sëf il faut coiffer émission yi nga xamante ni mooy am ci télé mais par contre dañuy délocaliser toutes ces émissions là dans ces endroits là yi nga xamante ni tey jii ñu fa nekk di émettre donc pour permettre à ces gens là et de leur dire clairement que la télévision aussi est là pour eux et non pas par exemple pour seulement Kermassar moi j'ai toujours au fait euh, euh, isolé par exemple l'effet de dire qu'une une télévision locale parce que vous faites ni yaa ngi émettre Fenen fudul le Massar direct, rek télévision locale donc da vision bi c'est toujours dit mooy tey jii dem arrivé moment donné di concurrencier les plus grandes chaînes de télé donc c'est ça notre vision xam-xam baa ngi fi xel parce que vous gisee par exemple Proxy, jéego il est sur la bonne voie donc actuellement ci li nga programme décembre donc c'est des programmes qui vont au-delà par exemple euh, d'une simple vision pour comme on le dit souvent il faut viser suffisamment loin pour ne pas tomber trop bas donc actuellement ñun objectif un ñu am télévision proxy dans des plus grandes chaînes de télé bi nga et je prends l'exemple par exemple toujours je prends cet exemple là nos équipes vous nous, métiers ci terrain y fak yenen télévision yi ñooñu dañ leen dañ naw voilà pourquoi day on y va avec les moyens du bord mais on traduit souvent l'ordinaire en extraordinaire c'est-à-dire que les moyens du bord ils ñuy mais en termes de résultats résultat final contenu bi ñuy en termes de résultat final de refléter les moyens dont nous disposons c'est-à-dire que résultat yi ñuy par exemple xool disposé dans nga lit donc ce qui veut dire que l'excellence ce n'est pas une question de moyens mais c'est une question de de et nous on a choisi d'être excellents, quels qu'en soient les moyens dont nous disposons nous allons travailler avec les moyens du bord et on va faire de cette télé-là l'une des plus grandes scènes de télé donc les objectifs sont nombreux et que l'équipe qui sont là on est une famille comme on a comme on a l'habitude de le dire et on va faire en sorte au moins voilà quoi pour télé mon mon ayca mu ngi noonu gars yi ba tey proxy bu la wax waaye nag tey proxy lu la ba xaay ñor na dama fee gis benn copain nag bu jantal nii mais copain am na naa la de. mais gars yi maa lay ziar. jàmm. waaw sant yàlla baax alhamdulilah. tey damaa ci kër gi di loqati waa kër gi. waaw mais fii de moom ko loqati ku moom daa war a génn moom. mais proxy bu la ñu wax mais dama kaa proxy nu jommi woo mais chez nous ak chez vous luy différence bi. mom vous nuuga la rek. lepp lepp benn la rek. <laughs> waaw mais mais ma ma yaa waaw ma ngi sant yàlla ba alhamdulilah. mais je pense que duma ma la laaj noo gisee Proxi parce que yangi yangi ci gi no gisee liggéey 2021 bi. waaw Proxi moom li tax mu neex moy euh ay xalé ko yor ay xalé fi ne ay xalé yu meun lañuy def tay proxy ku tok sa kër diko sa saa ay mag fi nekk fekk bo ay xalé yu ndaw fi ne te proxy moy télé bi nga xam ni moom mujjee juddu mhm. waaye raamul daa dox. defe naa ne képp ku fekk ci yoon bi boo yéexee mu romb la ndax mën li ñuy def mhm. xam li ñuy def mhm. te it seen euh, PDG ñeme financé mhm. ñeme dépensé ñeme def moo tax euh, ñu am image bu nice de am son yu nañ ay xale yu jongo ma ko mel ni boo def ko si mu beige <laughs> def beige marron yow ba ba yow Macky nga yaa ngi koy décortiquer de beige Macky Sall Sénégal la sénégalais <laughs> mais 2022 bi lu ñu mën a xaar ci Proxi TV aussi yée lu bees hmm. lu garaaw lu bandi deux mille vingt deux. lu garaaw. kon à suivre loo xam ni ku yéex a abonné. Mm-hmm. ku yéex a ji ligne am ko. bu ñu tàmbalee janvier. ba février di nga taar loo xam ni. Mm-hmm. gars yi proche seen biir kër. seen suufu rondal mm-hmm. seen kaw almoir seen biir salle de bain di leen sang ba ngeen set ngeen di bëggee. ak proche uh-huh. kenn duñ téye. mais yaa ngi suivre musique démb. waaw kuy sa waykat ci démb ci ancien yi. waaw man Ndiaga Mbaye sama waykat. ban son moo la gën a neex. ndax Ndiaga Mbaye dafa way dof dof bu ko daw bu xam ko. Mhm. loolu way la boo xamante ni ku xamul li mu wax rek doo ko déglu man way bu daal man moom moo ma daaneel ma. mu neex la parce que dama yoroon ci mbedd bi gis yàlla li mu bind. ñi wér ñi wérul. nga gis ku wérul nga romb ko ëllëg nga saafante ak moom mhm. mais na koy daw. te ka ngay daw noonu yow am na am na ay mbokk yoo xam ne ñu ngi koy wër mënu gis nga la wax romb ko nuyu ko saafante ak moom mm-hmm. même buy dóore mm-hmm. fexeel ba dootu dootu dóoree mem waa ki may jàlle may may jàlle képp ku yàlla teg natt boobu nga am xel mu wérul mm-hmm. nga am ay mbokk yu wérul maa lay masu bu baax ci waywalaay ni may dina ñaan daal ñoo delloo si yàlla delloo si xel bañ delloo si activité yi newoon amal jàmm ay ca naar ba tey maa ngi fi seen benn booy bu def benn tëri militaire maam Thierno mais booy bi dafa bandi de mais booy yow foo jógee waaw maa ngi jógee Rio yaa ma gën a xam yow lan nga booy non man artiste rappeur laa nag. artiste rappeur waaw. yow foo toj. waaw man fi ma toj bëri na daanaka yow da ngay laaj laayu taytalu mais xam nga ni mu demee. non man booy xaw ma maa lay soo gis tey. <laughs> waaw ki ko man ak ki koy jéem du benn gars yi xam na ñi di seetaan waa Proxi yi ak ñëpp. Uh-huh. gars yëpp xam nañ ni mu demee. mais noo gisee Proxi chez vous tey nag damaa dëgër bopp dañ ne mën a génnal dem ci mbedd ma ne la non ci kër gi laa yem. waaw chez vous ak seenu benn la rek daanaka Proxi moom uh-huh. uh, ñoo ngi def affaire yu nice nice barki yàlla. Uh-huh. daanaka maa ngi siy gis sama boobu ak ñi si gis seen boobu aussi bëri na damay toog sax avant may xam proxy mhm. gaa na maam proxy TV proxy TV mhm. yàlla def ñu tese man ak yow nga Ngalandou Diouf nga présenté ma sa sa sa sa ki nga àndaloon noonu euh, Leuz waaw mu ñu koy wax grand bu grand bu bu baax daal bu bëri jàmm sax mhm. maa ngi leen di xamal que ni Proxi TV télé boo xam ne nii pour jeunesse bi la quoi ak mag ñi ak ñëpp parce que ñëpp dañ ciy gis seen bopp mm-hmm. franchement maa ngi rafetlu télé bi te yàlla na fi yàgg quoi. mu nekkoon booy bu sikki bi dëgg Tëngéej booy Milo mais damay dugg li nga xamante ne moom mooy ci biir euh, ah, euh, damay dugg ci biir damay dugg ci biir maam Thierno. waa mais waa mais gis naa benn réalisateur mais gannaaw maa lay nuyu. maa ngi lay fay. maa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci yow la kan. Euh, vito nen may wax ah. Hmm. waaw en tant que mooy sa liggéey ci tele bi. waaw réalisateur si biir kër gi en même temps infographe ah. Hmm. waaw d'habitude yow laa fiy def quoi. seen liggéey 2021 noo leen ko gisee. waaw j'espère que ni atteindre nañ sunu objectif. Hmm. à à cent quinze pour cent ah. te c'était l'essentiel aussi. parce que dugg nañ euh, si nawetaan yi dugg nañ ci ay reportage yu ñu et même aussi que euh, si 2021 fexe un tout ba gën a société bi te loolu moo doon objectif ba nga xam j'espère bien que ni euh, euh, banlieue bi ñëpp xam nañ que Proxi TV aussi quoi. 2022 lu ñu mën a xaar ci Proxi TV. ba 2022 moom incha des innovations aussi hein. parce que à chaque fois moom loolu la ñuy def rabi quoi chaque fois nañ ñu xaar fu ñuy xaar chaque fois ñoo ngi fexe tout pour jéem kaa dépasser te loolu suñu objectif primaire aussi quoi. waa mais frère yow yow yow yow lan nga ci kër gi yow. salaamaaleykum. lan nga ci kër gi laa bëgg a xam yow. man ah man de cadreur la monteur ci gaala bi waaw. mais daa artiste bu mag tamit de. ex artiste. bàyyi nga bàyyi nga. <laughs> bàyyi naa bàyyi naa aar bi mooy loolu noonu waaw. mais noo gisee Proxi bu tey ma dëgër bopp ne Proxi seenu laa koy def pour mën a wax ak élément wu Proxi TV noo gisee loolu. loolu la affaire bu nice la loolu c'est nous dans ci gaala bi la naturellement nii nii ci gaala bi gars yi nga jël gars yi gars wax. loolu dama koy rafetlu. mais Proxi bi mi ngi màgg quoi depuis mu nekk xale 2021 bi li ngeen di liggéey macha allah. waaw nice sant yàlla rek sant yàlla rek te en plus dañuy ñaan yàlla mu yokk waaw parce que am na gars yu fi nekk yu am volonté. gars yu bëgg liggéey bi ñu wàcc seen bopp mooy loolu gëm-gëm la rek en plus joxante loxo waaw liggéey moo avancé quoi amul leneen. kon naa ñu xaar 2022 bi lu extraordinaire. xaar 2022 bi lu extraordinaire ak la Proxi TV mooy loolu. la eh, lii la la. lii làq la wala xam. joolaa la wala lan. joolaa pire. mais nuyu naa la. maa ngi lay fay moom bu baax. naka seen euh, activité 2021 bi noo ko gisee. waa sant gërëm yàlla muñ ak moytu rek. Euh, di kontan bu baax a baax euh, que ni comme ñu ngi jëm ci li nga xamanteni moy année bu bess dañuy kontaan am mbégte bu baakha a baax waaw. mais projet bu la yow yow nga demoon Malika tay ma dëgër bopp ne duma dem fenn lo gisé lolu man dama dama sikki de. waaw xam nga affaire yi mom soti seeg def ci la rek dafa melni tay bo nekké ci biir kër gi euh, genn nga ndax kër gi ñun ñëpp ñun ñoo fi nekk te ñoy gennat ci mbéd bi danaka man dama gis ni lu lu lu extraordinaire la daal lu neex la parce que c'est une première fois. nit jël micro tàllal ko si biir kër gi dégg ko waa kër gi ne wax leen seen nawel yi na ngeen ko passé genre naka ngeen di euh, passé bu bees bi aussi man dama ci am mbégte contentement bu mag wax dëgg neex yàlla. mais ni nga solo nii lan la tamit lii culture wala lan la. waaw lii xam nga tarkaal la. comme ñun dañoo am habitude boo xamante ni dañuy sol yëre tubaab douze douze mois sur douze donc tey ma ni pourquoi pas tey ma indi sama cosaan euh, tëjee ko li nga xamante ni mooy deux mille vingt et un bi daal di ànd ak moom gungewaale ko jëmale ko deux mille vingt deux moo tax ma génn sama cosaan joolaa nii def ba mu baax wan ni que ni man joolaa ba rafet bi may wootee dama koy wuyoo parce que balaa nga ni naam dafay fekk yaa nga fa ba ba noppi. waaw lu may seen nii xale bi di beel xale bii Belli Eva lañ koy woowee bàjjan national. maa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu wér. boo gisee projet bu tey ma dëgër bopp ne chaîne laa ko def indi ko ci kër gi tey. waa da gën rek di la jaajafal bu baax rek euh, di la encourager yow tamit nekk nekk ci kër gi yaa ngi fiy def lu rafet macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax idée bi nice na projet Seynou bi ñëw nga sa kër daal kër gi baax gi. mais 2021 bi li ngeen liggéey tubaarkàlla de gis ngeen ko. waaw dañoo nekk xale rek nee naa la lépp xale koy def. lépp rek xale koy def xale moom mooy avenir xale moom mooy lépp ñi leen ñaanal yàlla waa Proxi liggéey bi gën a saawaan baawaan fi ñu bëggee egg suñu borom bi teg leen fa ci bàggi Seydina Muhammad yaa ca moom moo raayam nee naa la tey maa fi am lu kenn amul tey man maa fi am émission trois quarts d'heure matin midi soir ay ca moom moo ma gis benn si sa fekk ko ci kër gi mu belli daf yëfu naa soxna si nuyu naa la maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la Euh, di la jaajëfal bu baax a baax di nuyu suñu mbokku téléspectateur Proxi TV Proxi TV nag mu doon chaîne boo xam ne da lay jege di la wan sa bopp doon ah. aussi la chaîne leader. mi ngi naka la soxna si. Roqee Fall la. ci kër gi yow. man kër gi li ma fi indi bari na ndax damaa bëgg bokk ci kër gi. Eh. bokk ci éléments yi. di def ni ñuy defee dox ni ñuy doxee. maa koy validé validé naa ko. kon neex na. kenn waxula la macha allah tubaarkaal da nga jong ma. man wa dégg na ko ci yow. dal neex na. no gisee liguey progressive ba tax nga bëgg fi liggéey. macha allah liggéey bu jaar yon rek ba paré dañ ko organiser vraiment té lolu moy dolel euh, mbir parce que nit ki budé da ngay def dara ak lu mu mëna a doon nag même budé sacc sàcc sax foog nga fulal ko mhm. parce que liguey bo mëna def sa liguey la ya xam moomal sa bop kon boko fulalé rek bëgg ko dan la koy bëggalé motax proxy neex ma ndax macha allah organisation bi fi dafa jaar yon eh, kon dal 2021 tañ nañ ko rek mais 2022 bi da ngay bok damay gëm ni moy raw té moy dak lo gis inshallah ci katane suñu borom merci beaucoup aja batay ma ngi euh, proxy chez vous tay ah proxy chez vous proxy chez vous ki ma gis mu té micro kal la ki kal la wa mais grand ki kal la euh, bëgg naa leen bu waare wala bu daju waa gis nga lépp boo ma si woowee rek day yoon yow lan nga ci kër gi d'abord waaw man technicien polyvalent xam nga rek hmm. lépp laa ko waa mais noo gisee liggéey 2021 ak Proxi TV non nice nice gars yi ñu ngi si bu baax te incha allah day baax yéen xam ngeen sax day baax. nu ngeen di waajal 2022 bi nag yu bees yi. non eh non ay kër yu bees tàkk. technicien xale. Eh. xoolal ay animatrice xale. ay animateur xale. leer laa la wax moo moo. doy foo. ay ca ba tey mu ngi noonu gis ngeen gars xam naa ne nag ngi ak beneen bro boo xamante ne moom it ci kër gi la ne booy bu sikk bi ci kër gi ah mais nag borom baax la nag bàyyi faal bi mais fi siyaar naa la. maa lay delloo siyaar bu mais yow la kan sax yow. ah mais min nañu ma gars xam nañu ma bu baax xam nañu ma ci Proxi TV télé bi la jëkkër di la wan sa bop la chaîne leader euh, la première chaîne de proximité ici au Sénégal donc euh, gars yi xamante xamante nañ man ak ñu qui il boy qui est-il. <laughs> bàyyi ma vous yow lay defee sax. moma ma jaaxal dof. c'est pas possible doyul yaa yama yaa ma yónnee ma Proxi chez vous man ma ñëw dafa Proxi chez nous. Proxi chez vous ñu la Proxi chez nous. Proxi chez jangul na <laughs> mais noo avez proxy Proxi de 2021 mais C'est très ah, hein c'est très parce que la chaîne de télévision Proxy c'est une équipe jeune chaque fois que je wax parce que on est jeune non aussi on est très suivi Et dafa am solo les lay jox donc la jeunesse donc beaucoup de la jeunesse rec euh, Inch'Allah réussir réussite da da ciy daal di top donc loolu la ñu bari ñi nga wax lan secret proxy secret proxy c'est juste professionnalisme la euh, ak li nga xam ne ni détermination ñu fi nek ñëpp dañoo déterminé pour que proxy fiñ ko fekk yóbbu ko fenen te motax fegn na suñu résultat motax euh, vraiment la chaîne de télévision privée proxy mi ngi en train de gravir les échelons mi ngi monter en puissance et loolu aussi suñu téléspectateurs également am nañ ci parce que nous duggal ñu apprécier ko plateau yi hein émission lepp lepp lepp yéen la. nu ñuy xaar kon 2022. Oui mais 2022 mooy yokku cere doole ñeex ah <laughs> yokku cere doole ñeex et puis voilà di gën a jox plus de plus d'émissions et plus de plateaux euh, pour sunuy fidèles téléspectateurs ak sunuy internautes parce que la chaîne de télévision Proxy... elle est bel et bien suivie sur l'ensemble de nos plateformes digitales et de communication nous sommes sur YouTube sur Facebook ak sur Snapchat gars ñu ngi xel bu baax a baax a ah. ay ca ba tey maa ngi euh, di DJ Ouz booy booy booy booy booy booy noo def. waaw maa ngi nii rek moom maa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax prochain bu la wax mais tey ma kat prochain nu tey. ah tey def nga def nga lu nice ah mm-hmm. def nga lu def nga comme ni ko noo gisee Proxi TV 2021 bi. waaw Proxi TV 2021 bi mbégteeg bànneex rek la am ah. Mm-hmm. comme ni ko gars waxee rek mm-hmm. duggoon nañ ci bisimilah di ci waaj ji génne alhamdulilah donc mbégteeg bànneex rek la alhamdulilah. acca lu ñuy waaj 2022 yéen en tant que animateur aussi ci kër gi waaw ñoo ngi waaj lu doy waar ñoo ngi waaj lu doy waar comme ni ñu ko tàmm di waxee rek ak la Proxi TV muy télé bi la jege di la woon sa bopp di télé askan wi di télé banlieue bi ñoo ngi waajal lu doy waar képp koo xam ne téléspectateur nga rek jàppale leen 2022 bi ñuy dugg ni incha allah di ngeen am ay plateau yu doy waar di ngeen am ay innovation yu doy waar si booy yow booy da nga ne loy la ni déglu nii. garaaw dama garaaw dama garaaw dama garaaw. looy déglu nii booy. non dama doon xol gaay yi la ñu monté keroog ci événement Abiba bi. Abiba bi mais ma ngi lay ziar bu baax. boo gisee liggéey Proxi TV 2021 bi. non Proxi TV c'est la chaîne de la banlieue. tey c'est c'est quelque chose d'exceptionnel exceptionnel buñ amé lu toll ni Proxi TV daw ñuko ko gis ci banlieue. ñu am chance su gis ko ci ci ci banlieue bi actuellement mu ubbil ñep ay portam. pour ñep ñew vraiment duggal ci sen loxo lolu c'est est exceptionnel quoi. mais nu ñu waaj 2022 bi kon. waaw surtout loolu surtout loolu surtout loolu surtout loolu lu am solo ah donc nañ ñu xaar en 2022 ak ay programme yu am solo mm-hmm. nañ ñu xaar aussi ak ay surprise yu bari parce que defe naa 2022 mooy année bi nga xamante ne nii si la euh, Proxi TV war a gravir ay échelon mm-hmm. fekk si gars yi ci kaw parce que te du yomb aussi ah. parce que équipe bi li fi ne du ay caaxaan mm. mais ma euh, ah, kala ko falɗon an ah, e woodi par que kamɓe ɓen ni wona tun euh, euh, teewu walla guettogol woodi ne woodi foññe kappe jaabere jaabere am na jour boobu jaabare mais xam nga daf may jaabare may yippal di lekket ay jaabare ay foññe am na fa am na fa ah yaa tout am na jaabere yaa tout là-bas waaw lekk dangay naan waaw léegi nag parce que ñoom dañ doon laaj est-ce que dina am ay jaabare ay lépp am na voilà joni ne woo di jaabare ne woo di foññe kala ka faal donc ñaawdi inchallah fii culture guinéenne ne woo di ñan na ñande dimanche inchallah rabbi kaɓay nata métro